taxaw ne man justice justice bu ma woowee du ma ñëw loolu ñun daf ñuy discrédibilité ba pare Ousmane Sonko mooy kan ba juge bu ñu ko woowee du ñëw wuy ci si euh, ñu ma àndal ñooñu boo boo gisee sax ku gën a radical mais bu ñuy wax radical mais maanaam opposition bu jaar yoon man la coalition bi Yewwi Askan Wi bi ñu ko tegee ba léegi maanaam man li muy reproché régime Macky Sall ñoom sur le plan technique amul kenn ku koy def. coalition boobu yow yaakaar nga ne dañoo gañe gañe moo leen tax a jóg wala caser seen seen seen syndicat di de de de de criminels et de violeurs yooyu ñu yore c' est un de crimes et de et de et man je le dis en tout euh, humilité parce que euh, man pour man c' est un syndicat qui vise à protéger ces gens dañu bëgg a protéger seen ñun ñi nga xam ne justice mu ngi leen di traquer. maanaam Ousmane Sonko c'est du sang un peuple ne doit pas se vider de son sang neuf tey nga éliminer ko même loo ko contre contre politiquement waroo waroo waroo football luy éliminer Sonko sur l'échiquier politique. Euh, jili jili bal bi day changé bul bi day tourné tey Sonko mooy leader de l'opposition mais suba mën na nekk Ablaye Sonko il a il a une ascension fulgurante euh, Sonko c'est c'est le choix du peuple sénégalais c'est l'incarnation de l'opposition sénégalaise radicale pure et dure. ensuite Sonko mi ngeen di foog ne dafa violent man man je ne pense pas que c'est-à-dire que dañ ko dañ alors que Sonko peut-être am na attitude en un moment événement mars yi mu am benn euh, mu am benn attitude frontale avec le régime et que man bu doon man sax noonu laay def. parce que boo ma woowee ci ay affaire affaire ñàkk fayda mais di ma convoqué pour pour téye ma damay bañ même bu ne boo sama bakkan ma bàyyi sama bakkan sax mais dama koy def maanaam attitude guerrière la def. Mmh. un chef de parti un chef de l'opposition ñu woo la ko ñu convoqué la bëgg la bëgg la bëgg bëgg la bëgg la euh, noot nga nga résister mais la résistance est un devoir